al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki daara ji maa ngi leen di nuyu te leen ziar di ko teg ci loxo sëriñ xaadim ak sëriñ xabaan di mbokk yépp di leen gërëm ci ñaan yi ñaan yàlla ko yàlla nangu te boole ñu ko mbokk mi laaj nee ndax jigéen joo xam ne day jàngale alquran bu setut ndax dana mën a wéy di jàngale waaw Euh, dañuy tereku ku jàpput mu laal alquranul karim waaye dañ ci settee ab dong akub jàngalekat ñoom buñ gisoon jigéen bu gisoon baax euh, sañ na jàng laalub kaamil sax nag bu fekkee ne waxtu jàngale wi la xam ne ci daara ji nekk di déglu gone yi wala muy dong buy jàng euh, waxtu woowu may nañ ko mu laal alquranul karim bu fekkoon nag dafa yore janaaba moom moom duñ ko may mu laal ko te sanguwut waaye bu fekkee ne eh, mbërëg la moom eh, néewut ci loxoom te mënu koo teg ci sansan kon dongo bi ak jàngalekat bi may nañ leen ñu laal alxuraan te fekk situñ wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku amoon doom ju góor doom ju góor ji dem takk soxna ba noppi nag baayam wëlbati ko takk yaayi soxna soosa muy laaj ba xam loolu dagan na na ni ki nga xam ne eh, nit ki mën naa takk soxna jël doomi soxna som amoon feneen njëkk muy ñëw may ko doomam mook doom ju góor ji takk soxna eh, àndaag yaayam baayam ñëw takk ko yaayam waxuma la yaayam waaye mbokkam sax baayam mën na ko takk nit mën naa takk soxna baayam takk rakki kooka wala magi kooka loolu ci lislaam dara nekku ci wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax ku dem ci fu mel ne jàkk lu mel ne gaaras yi barabi jullikaay yi dana jaadoo nga gis fa kuy jiite rek nga roy ci moom ndax nee na daa gis koo xam ne it barab bu mel noonu dafa fekk kuy jiite koo xam ne daa am cëram bu manqué waaw jullit day rafet njort bu fekkee ne fu ñu jàppee jàkk wala jullikaay la ña fa nekk day jullit am kuñ tànn di ko jiiteloo na rafet njort ci ne mën naa jiite boobu may gis lu wuuteeg loola bi ci des it bu manqué teewut a mat ilimaan nit ku manqué cër teewut a mat iliman mën naa jiite ay moroom mën naa jiite ku dara jotut bu fekkee ne euh, ponk yi julli yi mënta ñàkk julli yëpp ma ngi koy indi rek mën na nekk liman wallahu taala alam mbokk mi laaj nee ndax njàpp mi ne ci biir sangu set ndax ma ne sa si julli farata sangu gi lañ mën a julli farata njàpp mi lenn rek la ci sangu gi ndax bu sangu bu ko bu ko defutoo nit te cangaay la mat bu génnee mën naa julli donte jàpputoon kon tàmbulee njàpp dañ ko sopp mu tàmbulee ko waaye sangu gi la foofu njàpp mi amul atte cangaay loolu nga xam ne moo yëkkati ci moom laaj laab gu euh, toj mu mag mi cangaay loolu bu ci noppee mën naa dem julli farata doonte sax jàpputoon kon dañoo sopp ci biir cangaay la mu jàpp waaye bu ci jàpputoon di bu noppee mën naa julli wallahu taala alam mbokk mi laaj xam naa li muy laaj sax dañ ko tontu waaye na xam ne jataay bi du jataayu laaj yu mel noonu yooyu moom na yeneen barab ci mu lu jëm ci attey diine ci fiq ak suñu mbir yu mel noonu lañ la gën a jëm euh, day laaj-laaj bu ay aju ci nee na ci naxwu alfialul mutaaddi ak alfialul laazim luñ leen di xamee fialu muta laazim mooy fial joo xam ne amul mafulun bihi wala boog bu ko amee it mënu koo nasab day doxale ci diggante bi xarafu jar loolu la ñuy tuddee alfialul laazim fi'lul mutaaddi nag mooy fi'l ju am maf'ulun bihi ba noppi mën koo nasab boo ne akala mën na ne akala al waladu at'ama akala am na maf'ulun bihi te da koy nasab kooku fi'lul mutaaddi la waaye lu mel ne naama nelaw na al waladu gone gi boo ko waxoon naama fi'l laazim la ndax amut maf'ul nelaw du aju ci leneen ki ko def rek la waaye boo ne woon marra marra moom fi'l la joo xam ne dana am maf'ul ndax am na forombu waaye mënu koo nasab nag faw baa lay doxale ci diggante bi marra bil makaani kon lazim ñaar la bu am bu am mafool te mënu koo nasab ak boo xam ne amul mafool bu dee mu taaddi nag mooy fexal boo xam ne moom day am mafool ba noppi di ko nasab euh, wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na takku suuf lay laaj lu ci lislaam wax lislaam da koo tere da koo araamal takku suuf dëgganut takku suuf mooy sëy boo xam ne dañ koo fas waaye dañoo déggoo ci ña ko doon fas ak seere ne bu ko diw yëg boo amee kenn nit kuñ ko nëbbu rek takku suuf la su boobaa nag araam na saa bu ko yoon yëgee da koy tas wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax dagan na ab julit may ay cëram koo xam ne du ab julit muy laaj ba xam loolu bu daganee lan mooy firnde ji lan mooy dalil bi waaw li boroom xam-xam yi wax ci masala yooyu day dagan na nit ki coobariwu ay cëram yi nga xam ne amul jeexital ci wàllu ndono wala ngi sart amul jeexital ci wàllu ndono mën nañu maye deret waaye yoo xam daal day jeexital ci askan nga xam ne day mel ne yi nit di nuru ay cosaanam wala mu di ko doon ci ñoom yemel noona moom de su ko lu mel ne xis ak yu mel noonu dañuy tere xalaayal jihaz al bi yooyu dañuy wax ne des ko maye xamu ñu ko waxee nag ci wolof euh, bu dee bu dul yooyu nag manis na ko maye ci ay sart mu itam sart bi ci njëkk mooy ki koy maye na doon koo xam ne ci coobare la ko maye maanaam mag la ànd ak sagoom nekk ko ànd akom xelam kon ku sañ a coobarewu daal lay doon euh, bi ci def it kiñ koy joxit na doon ko ko yelloo bu mu doon ab yéefar boo xam ne day nekk ci di xeex ak jullit ndax kooku deretam dañ koo neenal kon na doon ab julit wala mu doon yéefar boo xam ne jàmm la seex ak julit ñi kum ci mën a doon nañ ko may ñi ko daga dañoo wax ne ci buntub ixsaan la dugg maa rafetal la yàlla santaane wa taawoon al birri ak sant rafetal jëm jëm jëmi ci nit ñi eh, ci la dugg kon xeetu sarax la woo xam ne bu kuñ ci defee day mel ne bu nee su ma faatoo sama ciriñ mën a jariñoo eh, mën nañ koo jël joxe ko kañ koy jox na doon ab jullit wala mu bañ doon jullit waaye bu mu doon mu xaarib kuy xeex ak jullit ñi kooku rek lañ bañ koo jox moom waaye ku dul kooku jox ko dagan na waaye nag na doon coo maye bu doon lu ñu jaay di mbokk mi wax nag mel ne léeg-léeg dañ lay boo ñaan ay kii dañ lay laaj ba xam da nga da nga boo faatu da nga nangu jël sa cër bu fekkee ne day mel ne wax loola mooy tax ñu may ko nag foofu loolu xeetu jaay la bu fekkee da koy maye ngir yàlla na nga ne mu benn sart bu ci aju moom su boobaa dagan mu def ko te incha yoolu sarax la cay am Eh, ci buntu rafetal la wallahu taala ahlam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa diisoog magam ci mbir nee na mag gi jox ko xalaat waaye mu gis ne xalaatam yi yor moom mu gën a rafet mu ne ndax su ko bàyyee dañ koy jàpp ñàkk dégg ndigal ak ndax dana jar loolu mag gi di ku ci mere yu mel noonu xam nga maslaa ak déggoo la bu fekkee ne diisoo la loolu du ndigal ndigal moom sa kilifa moo la koy jox goo xam ne bu dee loolu moom sa yi su ko xëtt bu fekkee da koo jàppee kilifaam moom ne mbir yoo ci bëgg a dugg di ci laaj sa ndigal moom lam ko ci digal loolu war def bu dee mbokk mu muy diisool nag bu ko joxee xalaat euh, xalaat booboo du ne euh, faaw da ko war a jëfandikoo waaye xëy na bu ko jëfandikoo jëfandikoowul nag war na koo leeral la tax jëfandikoo xalaat ba yu mel noonu nag bu amee xëy na déggoo mën a am wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa def luy tax mu waral sangu farata mu sangu ba noppi nag génne wat man nii mu laaj ba xam ndax sangu da koy waral wala def waaw bu fekkee man nii bi muy génnaat day àndut bànneex bi mu baaxoo àndal loolu jàpp lay waral man nii mu génn ci nit àndut ak bi baaxoo àndal du waral sangoo jàpp lay waral ñu mel ne nit ki jaxasoog soxnaam tar rek génnul ci moom bu dem sangoo ba noppi rek jékki-jékki man nii génn ci moom moo xam ne bi muy génn àndut ak benn bànneex man nii moomu jàpp lay waral waaye du waral sangu wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na jirim yoo xam ne ñaar lañ euh, seen nijaay moo leen yoroon ak xaalis buñ amoon nee na nag mu jël xaalis ba doon ci liggéey waaye moo leen doon dundal ba yàgg mu daanoo wéy di leen dundal mu laaj ba xam bu faatoo xaalis boobee mu yore xale yi ndax dañ koy fay bala ñoom ñaras wala déet waaw bu fekkee ne da leen doon dundal ngir yàlla de te xaalis ba da koo leboon ngir di ci commerce suba dañ da leen di fay bu fekkee nag. ci seen alal la leen doon dundale nga xam ne day mel ne day commerce ci seen alal euh, bénéfice ba xëy na mu jël ci wàllam la ci des yi moom ko su boobaa nag dañuy xool lam leen dundal nu mu toll ñu génnee ko ca xaalis ba bu fekkee buñ génnee dund ba la ca des dana des dara ci xaalis ñu fay loola bu fekkee nag ne euh, lam leen dundal ëpp wala ñoo tolloo su boobaa ñoo xam ne ñoom xale yi lekk nañ seen xaalis njëkk euh, góor gi di faatu wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne jigéen juñ may borom kër waaye nee na nag laata muy joteeg borom këram mu dem njaalo ndax buñ koy atte dañ koy atteeg ku ñu war a rey wala ku ñu war a ki njaalo bañ war koo rey mooy ku sangewu sangewu nag bokk na ci ay sartam mu am borom kër borom kër boobu joteeg moom jote gu wér te nekk as gor ànd ak sagoom sartu yi ñu sar dal waaye bu fekkee nag jote jotut a joteeg borom këram kooku sangewu kooku bu njaaloo dañ koy caw waaye duñ ko ray wallahu taala alam mbokk mi laaj na na bu ilimaan dee xutba bay toog diggante ñaari xutba yi muy laaj ba xam ndax foofu dañuy ñaan ak it ci xutba fan lañ fa war a ñaane euh, jataay boobu ilimaan di toog diggante ñaari xutba yi jataayu noppalu la waaye nag am na ci borom xam-xam ñuy wax ne waxtu ajjuma yi nga xam ne ku dajeeg moom boo ñaanee borom mu nongul la am na ñu ko jiiñ waxtu woo moo tax am na ci nit ñoo xam ne bu imaam toogee du noppalu ñoom dañuy ñaan ci diggante bi kon foofu mën na fi ñaan ak bu ilimaan demee ba ci mujj xutba ba buy ñaan sañ sax sañis naa wax amin mooy nangu ñaan waaye dañ ko yàllu nag loolu mooy li ci gën wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na xadis bi wax na abi wa abaka finnaar kooku ñëwoon ci islam ne ko ay sama baay mu ne ko ma sawara waa ji mel ne ku jaxasoowul batiku mu waat ku ñëw mu ne ko sa ak sama bàyyi ña sawara muy laaj abaka jooju kan la ci jublu na abdullahi wala abu talib abdullahi mooy bàyyi yonent bi bu fekkee ne maanaam mi ñi jàpp ne bàyyi yonent sam la ci jublu bàyyam la bu ko wax ne ko sa bàyyi ak sama bàyyi ña nga sa war am na ci waram xam-xam yi ñu jàpp loolu de way jur yonent bi sallallahu alayhi wasallam woon ay jullit ñoom it dañu jàpp ne nee nañ bokkuñ ci lu fatara ndax wane wax ne xëy na woote maam Ibrahima alayhi salaam egsi woon na ci ñoom te gëmuñ ko kon dañoo faatu ci jaahiliya ay wax jooju nag imam Suyuti moom am na téere bu mu ci bind boo xam ne eh, weddi na ko wane na ne woy juri yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, ña aljanna am na téere bu tudd at-tanzim wal minna fi anna abaway rasulillahi fil janna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye bu ñu xoolee kaw xadis moom day mel ne daa bëgg wax rek ne ay way juróom ña nga sawar bu koy dëgëral bi waxee ne sàkk woon naa diisoo naa sama borom ngir sàkku ci moom mu may ma jéggulul sama yaay nangulu ma ko ma ñaan ko siyaare ji ku mu may ma ko euh, ñi wax ne ñoom doonu ñoon ay jullit kon nekkuñu na mooy foofu lañ sukkandiku donte nag imaam Suyuuti moom ci téere boobu xadis yooyu yëpp wax na ci ay wax ba saxal ne euh, ay waajuram moom yonent alayhi salaam euh, ña nga aljanna wallahu taala alam mbokk mi laaj ne koo xam ne buy sangu farata ne na loxoom dana am ci ginnaawam foo xam ne loxo ba du a egg muy laaj ba xam ndax kon bu fa sottee ndox rek bañ ko bomb dana doy waaw su fekkee ne yor na njàmp tey bu ko mënee bomb njàmp baax na su fekkee ne loxoom jotu ko njàmp gi jotu ko nag na ca sotti ndox te jàll la mu mënul jéggal nañ ko ko wallahu taala alam bokk mi laaj ne dafa am koo xam ne da ko amel xaalis te fay ko muy jaayal waa ji nag na def lu mu jaay rek am lu mu ca dagg nee na di ko denc ngir su matee mu fay ko ko muy laaj ba xam ndax loolu danga noonu de xam naa li gën nag moom mu wax ko. waaye boog bu ko dajalee ba matit na ko wax ne ko li ma doon li ma doon jaayal kat naa ci dagg nangam ak nangam ba mat na mi ngi nii la ma amee loon fayu naa ko loolu daa war a leer moom ndax loolu mën naa jur ci biir dagg googu dagg mën na ko caa jàpp jàppe ko sàcc alalam te loolu fitna mën na caa juddoo kon di woor a wóor rek ginnaaw ameel na ko xaalis daal nay jëflante mu jëflante bu leer fexe mu fay ko loolu mooy li gën wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa daan yër lu bari tanbihul xaafiliin ak muxtaarul ahadis ak yu mel noonu waaye mooy laa dégg ñu ne tanbiihul gaafiliin dafa bari ay xadis yu wérut bëggoon ñu laa biire ko ci téere xadis yoo xam ne la ci nekk wér na waaw li boroom xam-xam yi wax de mooy téere bi gën a wér ginnaaw alquran mooy saxiixul buxaari eh, saxiixu muslim topp ca kon téere yu mel noonu mën na ko yër ak lu mel ne muwatta imam malik téere ak kutubu xadis yooyu nga xam ne yu siiw yu mag la donte am na ci yeneen yoo xam ne sax am na xadis waaye lu mel ne buxaari yoo muslim moom dañuy wax ne xadis bu wérut nekku ci moom yi ci nekk yëpp yuñ nangu la kon yu mel noonu mën na ci sukkandiku ak it léegi sax jumtuwaay yi ñuy gëstoo ngir xam xadis yoon wala bu mën a gisit bu ko gëstoo ci yooyu danañ ko ci wax atteb xadis ba su ko defee fu mu ko mën a fekkee kon mën naa gëstu ba xamaale na xadis bi lu ci waroom xam-xam wax su ko defee mën ko jëfandikoo wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na soxna soo xam ne day jaay aw ñam restaurant la yor waaye nee na dafa jubadi jubadi goo xam ne xam nañ ko ñu laaj ba xam ndax kooku sañ nañoo dem di jënd ci aw ñamam waaw bu fekkee ne jubadi gi da jëmu ci ñam wa sañu sañ jox jënd fekkee yëfi boppam la yoo xam la ñam wi nag ñam la waa xam ne la lañ santaane ci aw ñam ma ngi ko cee bàyyi xel suba boobaa sañu cee jënd loolu nag da ngaa da laa leer nañ ñu ne lépp lu loo loo loo jënd ci moom bu nappee da koy taxawaala wala da koy jënd lu bon loolu soo xamee loolu moom waroo caa waroo ko jënd ci moom soo amee leneen ndax jàppale ko ci ci bàkkaar la bu fekkee nag moom euh, la muy jaay ci ñam ak la muy def jotewuñ jotewuñ dara su boobaa nag bàkkaar bu bàkkaar yow sañ ngaa jël ci tamit boo ko ajowoo wallahu taala alam euh, mbokk mi laaj nee na ngay liggéey ci Orange Money mu mel ne bu yónnee nit xaalis ñaari junni nee na euh, boo koy jox yow day manqué téeméer léegi nag léegi-léegi nag nee na nit ñëw mu fekk loxoom jàpp mu jël uh, junne juróom-ñeenti téeméer yooyu jox ko daal koy wax ne ko nag yónnee ma uh, kii bi ci sama ci téléphone xam da ko yónnee wa dix mu ne nag dix yooyu léeg-léeg bari ci moom du ko retiré muy laaj ba xam ndax téeméer téeméer yooyu mu jël nga xam ne orange da ko defoon ngir saa bu nit di retiré ñu dagg ko ko moom mu dajale ko riba wala lu doon foofu de li taleer mooy ndax téeméer boobu euh, orange daa wax ne yow miy jaay yow yaa ko moom bu fekkee loolu la nga xam ne yow yaa ko moom nit ki ñëw sañ nga sañ nga ko jox lim moom yow la nga moom nga téye ko dajale ko bu bari waaye bu fekkee nag ne yow moomoo ko waaye ay pexe nga def ba téye ko su boobaa nag loolu àq la moom jël alal du léwul la faaw ñu ñu leer kon téeméer boobu ñuy dagg client bi. ndax yow mi jaaye jaayal jaayal orange mu yow lañ yow moom wala day téeméer bu war dellu ci ñoom lu moom moo ta leeral waaye bu leeral ne yow yaa ko war yaa moom nag euh, nga wax waa ji mu yónnee la ko ci sa tel sa sa nga jox ko li nga ko war a jox yow su boobaa ko moom sa xaalis la waaye su fekkee ne nag mu mu waroo ko moom moom loolu mën na tey wallahu taala alam